asalaamaaleykum mbokku Sénégal man Malick Gakou maa leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay di wax ne fii ma taxaw tey ci Caaroy Géej fii la immigration clandestine commencé ba xale yu bëree bëri faatu ci xale yi nag li tax ñuy faatu ci géej gi mooy dañoo sonn dañoo lot waaye ni ñu lottee sonne noonu la sénégalais yëpp sonne loolu moo tax ma xaatim programme ba nga xam ne nii day defaraat Sénégal defar koomu Sénégal defar njàng mi defar santé bi ba Sénégal nekk dëkku naataange dëkku bànneex dëkku sutura loolu bu ma ko bëggee xaatim mooy fas yéene naa taxawal Sénégal bu bees Sénégal bu nga xam ne nii bépp sénégalais di nga bëgg dund ci réew mi man Malick Gakou man mii leen koy wax ngeen xam ma ci liggéey xam ma ci dimbali doomu adama yi xam ma ci loxo yu set loolu moo tax ma ne dinaa tabax programme bu xam ne nii Sénégal dina nekk réewu naataange Sénégal dina nekk réewu jàmm Sénégal nag bu nekkee réew naataange nekk réewu jàmm nekk réewu démocratie nekk réewu liberté il faut ñu suuxat diine ji il faut ñu defaraat jikko yi il faut que ñu rafetaat àndandoo bi ba Sénégal nekk dëkk bi nga xam ne nii bépp sénégalais doo wàlliwaan da nga yaakaar ne ci sa réew rek nga war a dund. waaye nag Sénégal pour mu nekk dëkk bi nga xam ne nii dañ koo bëgg dinaa fexe ba président bi nga xam ne nii mooy Malick Gakou nekk président bu set loxo set loxo moo tax may wax ne bés bu ma yàlla joxee réew mi à partir du 25 mars 2024 incha allah. Sénégal kenn dul sàcc alalu réew mi kenn dootul sàcc alalu réew mi kenn dootul lubal alalu réew mi caaxaan faaxe te bu neexee yàlla bu boobaa dinaa fexe ba képp ku sàccoon alalu réew mi dinaa ko foqat yi teg ko ci kaw loxo Sénégal foqat yi foqat yi